asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk julli gi bokki taalib yi bokki réew mi ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raahu wa ayyadahu wa zaada min nasrihi di ñaan mu yàgg fi te ànd ak ba mboolem naan li nga xam ne am na ko ci lislaam suñu borom may ko kàttan ak lépp mu àggale ko mu kaw ñu xam kon lii ñu def lépp ndigale ma yéenee ma taxawaay ma kon doonu ji lu weesu rek defal nga def yemal fii nga yem fii kon cant gépp dañ koy delloo ci moom ndax liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu mag bi nga xam ne ni ngi ko doon def ci turu mboolem comité organisation bi yëpp nag ak mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp dañuy yëkkatiwaatu cant ak ngërëm di ko jëmale ci moom ndax Serigne Touba bokk na ci lim fàggul taalibe yi ci liggéey bi mu di noonu liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy ci ku toggee ab jotaay la danga ko mën a sëkk kon nag moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ñoom ndax mboolem li ñuy séentu ci moom rek weesu na ci faru diggam ak li ëpp solo mooy foo ko séen rek mu delloo ci yàlla te mooy li jiitu ci li ñuy doy kilifa li mu jën yiite àdduna dëdduna lépp dama ko waxoon keroog dëgmal boroomam dëgmal Serigne lu du liggéeyee Serigne yi du itteem lu du jaamu yàlla du itteem kon dañuy ñaan mu yàgg fi tànn biir ndax taxawaayam mate na ko sëkk liggéey bi itam di liggéey bu bi yàlla def na ba mu duggee ci suñu loxo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jëloon ko def ko jëwriñ ji keroo ba ñu taxawal comité organisation bi yàlla def na moo ñëwaloon boppam waxoon ci kàddu yu rëy yam ci waxoon kenn du ko fàtte muy la mu ne bu moo ko mënoon sax damay topp seen ginnaaw di di di leen liggéeyal kon sëriñ bi liggéey bi fu mu àgg rek cant gi dañu koy tàmbalee ci moom ndax ba ci Cheikh moo Lamine Bara Mbacké joxe ndigal da ko ànd ñun taxawuñ ci ba bari na ñoo xam ne sax moo leen tàbbal ci liggéey bi benn ci sëriñ Cheikh ñi danaa koy fàttali waxtu ne ak baree bari ñoo xam ne ci kilifa yoon rawatina ci waa majlisu suuraa bi moo leen joxoon ndigal ne leen ànd leen moom te jàppale kon moom muus cee génne loxo ba mu nekkee ci loxo itam lépp dañu ko bàyyi bi fi si Sidi Mokhtar Mbacke nekkee itam seen diggante ñëpp xawoon nañ ko mu jël lépp teg ko ci loxoom waaye mu jëlaat lépp bàyyiwaat mu ko teg ko ci sama loxo ci doy bi mu doonee Serigne itam fu mu ko fekkoon rek da koo yokk gën koo dëgëral sàmm waxtu wu nekk loolu la may fetli li ma bëgg de mooy dëgëral ak sàmm la te loolu mi ngi koy dox si digg moom kon dañ koy sant di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne li muy jëf lépp moo tax yàlla fay di gërëm nag mboolem ñi saqaloon liggéey bi yëpp tàmbalee ci waa mujj suura bi ba agsi ci waa comité organisation bi ci njiitalu Serigne Ousmane. tudd ñu ngi sant comi commission yëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku ci ne la la war ci liggéey bi def nga ko ci rafetal waxoon naa kon jël del si waat euh, waxtaan yi ngeen fi waxtaan yi itam lépp ni ko sëñ Saam leeral léegi lépp ay wax la yu rafet li sëriñ Ousmane wax li sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo yor culture ak communication wax li nga xam ne euh, sëriñ Abdoul Ahad ka ni jiite commune Touba wax na ko ak li nga xam ne professeur li mu jëyee ak ñi mu àndal wax nañ ko yëpp ak ba ci Moussa Moussa ñu yor wàllu ndox mi kenn ku ci ne la mu wax wax ji leer na kon jërul del si waat kon jataay bi li ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee aay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñ borom wax na ko fu baree bare bare cant nag la ci jiitu mooy cantu cantu xol mooy ma bi ma bikum min ni'matin fa minallah ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum ba ca des mooy cantu jëf i'malu ala Daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax qalilun min ibadiya shakur kon sant lu jëfe na seytaane bi nga xamee ne suñu borom dàkku na ko ba génne ko bokk na ca lam sartante moom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin loolu nag moo tax alxuraan boo ko demee walakin akthara naasi lu bari bari na ca walakin aktharahum la yashkurun kon sant yàlla lu jafe la boo demee ci alxuraan itam dana fa bari lool foo xam ne da ngay dégg suñu borom di ci wax ne qul man yunajjikum min zulumaati lbarri walbahri tad'uunahu tadarruhan wa xufyatan mooy li taalib yi def la in anjaytanaa min haasihi lanakuunanna min ash-shaakiriin mu ne qulillaahi yunjiikum minhaa wa min kulli kaabin summa antum tushrikuun kon day mel ne sant gi boo mu dog shirka day dugg Serigne Touba nag ci biir fàggu gi mu ñu fàggu nga xam ne lépp da ko fàgguwale moo tax ba muy nekk ca tukkeem bu tedd ba ci wala xad karam naa dégg nga mu wax ne yashirru juuxi li Touba waxmini waqini azal wara waltutib li zamma iskaana azal wara ji mbas mi tàbbi na ci biir waaye lam ci tegaat laka chama wal aradi wal hawa mu musharikin kon nga xam ne daanaka boo santul rek dugg nga ci sirke waaye lépp suñ suñ Touba fàgguwale ndax suñ borom dafa wax ne bàkkaar bu mu mën a doon rek dinaa ko jéggal ba mu des bokkaale moo tax Serigne Touba bokk na ci lim gën a tàgg ci taalibe yi mooy tawhid moo tax xasaa itam yëpp ci tawhid la ko delloo kon nag dañuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba euh, Cheikh Mahoudou Mountakha itam wane na sëkk ne mat nam Serigne ndax ku fi nekkee Serigne Touba kat fàttali naa ko ba tàyyi du samay wax waxi Cheikh Abdoul Ahad da ko wax ju gudd la dafa wax ne Serigne ci biir bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ca fagguwaale xutbaani yéegi du génnati ak njabootam mu ne nag sëriñtuwaa nag ba mu xamee ne amul ñaar amul ñett tamit te lim yor di leen te mënu ko jox kii bàyyi kii dafa jël lépp dajale ko ci waxale mu jël waxande wa rek lépp lu mu am mu def ko ci biir jël ceeb ji teg ko ci loxo ki mag njaboot gépp kenn mënta àgg ci waxande te jaaroo ci ki mag waaye moom itam sañut kenn ñëw laaj ko mu joxule ci ndax seen àll bàyyi di ci biir mu ne jataay boobu nag balaa caa kenn toog danañ la peese ak bindéef yi ba nga waddee ñu door la fàtte bu ñu la peese ak bindéef yi te watoo leen nag ñu dooleel la ba nga mat ko ñu door la fa teg mu ne boobaa nag lépp loo xam ne euh, balaa la buy wàcc balaa wàcc kaw suuf danga ci yanu ba diis ba doy ba doyal sëkk mu door wàcc ci bindee naka noonu itam lépp loo xam ne aw yiw la balaa wàcc ci kaw suuf dana agsi ci kaw nga jël ci ba mu door wàcc loola nag lii fii jataay bi toll Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na ko ci lu bare bari ndax ñoom dañuy gis lu ak siwut te loolu lañuy ñuy kilifa kilifa da day day xam loo xamut moo taxit dañuy wax ne boo nekkee ci sa kanawu sëyin danga war a mën ne kal mayiti bay na yeneen xaasili yi mooy da nga ko topp nit ki nga xam ne am néew ko koy sàng fu mu ko jëmale bu jëm fa moo tax it wa tarkul i'tiradi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xatawu wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari ndax loolu damay fàttali moom bi yii wàcc ci àdduna wàcce mboolem li nga xam ne suñ borom da ko santaane ndax inna makkanna lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan kon loolu suñ borom ko digle ci alxuraan mboolem luy sabab ya daa santaane na ko ñëpp def ngir wane ci aw yoon te diglewu koy bàyyi waaye da caa jiitu lam ci war a def mu def ko ci waaye itam li nga xam ne mooy ndigalu suñu borom nag da ko jiital loolu itam suñu boroom far na ko ci ba ci màggal gi itam ba mu santaane ne ne ñëpp xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne nag la ci Cheikh Ibrahima Faty waxoon rek ci kër gi la ko waxe woon ci Daaru Manaan gii Serigne Touba du ma sant mukk lu ma def te du santaane mukk lu dul am loolu nag taalib yëpp jëfe nañ ko mooy wane ne Sëriñ Tuubaa du santaani mukk du am te duma sant mukk lu ma du def foofu la taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nekkoon roy ci seen jëmm kon loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ne li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif àdduna si na mu ko waxale boppam da cee déggu ñoom yàlla def na man seere laa ca ba ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéene jëm ci am ak li mu ci bëgg la ma wax mooy te naa ko ci télé bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ku arrière bandi da nga ko ci fekk nee li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rek ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba bërki démb rek waxaat na ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax ne Tuubaa de dañoo sedd na jàngoro ji jeex na fa wàññi na mooy loolu nekkul ci suñ ginnaaw suñ kanam la Sëñ Tuubaa noppi na ci lañ ko bàyyi ci loxo waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñuy fooyee du lu ñuy bàkkoo itam kon lu ñuy sant Sëñ Tuubaa waaye du lu ñuy kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak lu bare bari nee na mbirum baatin du lu ñuy fooyee du lu ñuy caaxaan mbirum lañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñuy bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuwuñ dañuy sant te euh, Sëriñ dafa alxuraan dafa wax ni wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis moo tax sëriñ bi lépp lu ngeen dégg mu wax ko ci ak may digg ma borom foofu la ko teg qultu wa xasdi taxaddusum bi ma lii qaadahu wala yurini niqama kon ñoom dañuy xam lu ak siwut waaye lii ko sëriñ Touba sagale ci kanamu àdduna wane na ne Serigne Touba tey la fi gën a ne Serigne am sori jaxat daana ko wax nee na kuy nattab ne Serigne Touba nekkatu kon boo amul dara ci basiratu waaye Cheikh Mouhamadou taxaay yaqin ji mu amoon ne jàmm rekk a xew wane na ko ndax ñi nga xam ne ñooy wàllu àdduna gi wane nañ wax nañ ne màgget gisuñ benn jeexit mu am jàmbur yi kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne Touba. te bañ koo bàkkoo Cheikh Mahoudou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa biiri nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla da koy gën yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne tubaa defal ci biir àdduna lay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu àdduna sépp la ne te Serigne tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi ngi ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sant yàlla sant ko Serigne Touba damañ ko baaxoo boobaa kat tawféex rek lañ jural te xam ne Serigne Touba njabootam dafa yàlla te moom wax bind na ne li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man boo demee ci rabbi bi maay show rabbi bi maay show yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawlin irham jami alwara loolu fii la ko taarife daaru manaat gi ñu nekk tey kon moom yërmaandeem wa rahmati wasi'at kulla shay'in kon Serigne Touba mbirum xatu euh, dafa yaatu kon na ko ñëpp yaatu ne euh, kon lii lii nag loolu lañ ci mën a jàng mooy gën a góor góorlu mu gën a yokk yaqin suñu digg Serigne Touba te xam ne mbirum Serigne Touba nag ni ma ko waxoon rek lépp xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne boo doon dàkk sam xel. wala les scientifiques di jox du bokk ak la ngay gis ndax ñoom ci seenee nattuwaay li ñu waxoon mooy bu bu nit bu nit ñi buñ dajee wàllante bi dana bari kon bu ñu xëyoon ay téeméer nit mu leen di dal itam dañuy jàpp ne loolu mooy li war a am waaye nag lii xar baax la xar baax xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne baax baaxuñ ko gis moo tax am na kilifa bu baax gu daa wax ne mbirum Sëriñ Tuubaa lépp day xar baax xar baax nag boo ko bëggee xam danga nga koy jaarale fur bu baax kon gën a sant yàlla bu baax rek euh, te wattandiku itam la Sëriñ Tuubaa mujjoon a wax ca ndigalam yu mujj yi moo Mouhamadou Mountakha bokk na ci lim gën a wax ne dañ ko fàttali nit ñi Sëriñ Tuubaa dafa santaanoon ca waxtaan ya mujj wax ci njariñ na nañeen fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahood yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahudu laysati nasara ala cheyin waxaalati nasara laysati yahudu ala cheyin te loolu gis nañu mi ngi bëgg a xew ci jamono mooy jullit yi di xeexante ci seen biir wala ñuy mel luy wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fuñ jëm lañuy wax bu dee dëgg ci ñoom la leen juyeel bariwut ndax li ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul bord di compter ndax loolu ay yàq rek la jur te Serigne Touba wax na ko fu bëree bëri laaj yi ñu ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam bi daana ko wax Serigne Souhaïbou bu laa ko déggee daa wax ne day xëse bu xóor nag muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax nañ ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla kum tudd ne kooko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la. ndax ba muy jébbulu ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa dagg mu joxe ak nitu yàlla daane moo tax nag bëgguma kenn ku bokk ci yoon muru ku di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñëw nañu si ba jébbal ma kon sama njaboot lañ Sëriñ Tuubaa kon yaata xatalutoon bi yoon da kon nag nañ ci góorgóorlu baax te xam ne Sëriñ Saaliw suñu borom dafa wax ci alxuraan walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamii'an Serigne Saliou nag am na luy fi ma sa xew ci juyoo yii daa am ci biir weer yi bañ dikkee ba wax ba noppi mooy leen li ngeen wax lépp de lu baax la na ñun de ci ngeen ñu fekkoon waaye nag damaa am tuuti lu ma leen di jàngal mooy xadis ba dafa wax ne ixtilaafu ummati rahma wa ijtimaahuha sunna sama xeetu bu ñu wuutee rek yërmaande suñu borom la daan leen yërmaande googu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a dawale kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam nañ ko jàppe noonu rek jàpp ne du yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gise jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp warmaala te sàmmuli la ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi sëriñ Basiru ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu bokki taalib yi fi nekk yëpp di leen siyaare mën na noo wax rek ci turu Seex Mamadu Muntaxa donte sëñunu ko ndax sëriñ bi moo war a wax ci turu Seex Mamadu Muntaxa waaye bu nu sëriñ bi joxee ndigalul sànni ay kàddu itam te nag bàyyi ko gañ bàyyi ko ci moom war faa delluwaat kon sëriñ bi dana nu sant ci nu seere li fi gis dégg ko fi ci doxin bu rafet bii dafa mel ne lu nu ci waroon wax rek sëriñ Sam wax na ko lépp ay cant la ak i seere ndax liggéey bi rafet gi mu rafet ak mat gi mu mat ak ni mu doxee jaar yoon gi mu jaar yoon li Sëriñ muntaxaa di wax rek yitte ju mat sëkk ak paste bu mat sëkk rek da ko laltaay mu yitte jooju nag ba mu jógee ci Seex Mamadu Muntaxa dafa ñëw ci suñu jëwriñ ji di Seex Mamadu Bachir yitteem ak taxawaayam mel na yitte jooju kon dañu ko wàll nun ñëpp du ma ne sax da ko wàll kon damay dugg ci biir liggéey bi dañu ko wàll nun ñëpp ke kenn ku nekk def ci yitteeg sa passeef ba mbir mi mën a mate nii mën a rafet nii ndax wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi doon dund mbir mi yëg nga bu baax ne kenn ku nekk lañ ko doon defloo def na ko defeen rafet nii ko sëriñ Sam tënkewaat jataay bi itam ku ko dégg rek mën nga ca xam la nga dundul wala la nga fekkiwut mooy kenn ku nekk lam waroon def defe na ko la mu gën a rafete waaye wolof day wax ne tegale bu jubee ca ndab la jiitu la wala ndab jiitu kon bu Seex Muntaxa nekkee ci lam war a nekk ak ndam ca war a nekkee ci yitteem ci pasteefam ci ñaanam ci lépp sëriñ Basiiru taxaw fa war a taxaw ci yitteem ci pastéefam ci ak yëgam ci ak ñorom ñor gu ko liggéey bi ñor tax na nun ñëpp kenn ku nekk xamal nga sa bopp ne ñor nga sëriñ Basiiru te boole gi ñu boole liggéey muy sunu jëwriñ moo tax nu ñoree ko noonu kon bëggam gu mu bëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa bëgg liggéey bi jaar ci yoon bëgg nun ñëpp kenn ku nekk la ngay def nga di ko seeral yàlla di ko seeral sëriñ Tuubaa ba lépp luy tax mu baax lañ lay def loo nga ne ca lépp luy tax mu rafet nga ne ca loolu sëriñ Basiir di ko dund ak noonu ñun ñëpp nu di ko dundandi ci suñu biir loolu rek mooy tax mbooloo bokk mbir def ko ba noppi ndam am ca kenn ku nekk la ngay def bu yàlla taxee sëriñ Tuubaa rekk tax bëgg mu baax rekk tax ñëpp nekkee foofa buñ defee rek résultat bu baax daal di am te loolu moo indi lii fi nekk tey li ñu fi dégg tey loolu rek lan mën a lan ci mën a déggee kenn ku nekk def na lañ ko doon def loo nam ko war a defee nam gën a rafete loolu nag bu amee résultat bu mat rek mooy am échec mënta am fenn bu fekkee day luñ kenn ku nekk toog fi barab ne fii ma jaar dara ma fi romb lu yàq dugg ci biir bu lu yàq amul fenn fu mu jaar rek lépp day baax te loolu rek moo am loolu rek moo am te ñu mën taxaa mooy jiitu di ñaan ak pastéefam ak yitteem waaye sëriñ bii di sëriñ Basiiru taxaw ci taxawaay bi mu ci taxaw te réunion yaag daje yaag kenn ku nekk yaa ngi yëg ne sëriñ Basiiru mi ngi ci sa ginnaaw mi ngi lay soññ ci liggéey bi te loolu defe naa nun ñëpp kenn ku ne mën nga jaxame loolu tàmbalee ci man dañ ma doon def loo gi mu ci am man ni ma ci doon soññee ak ni ma ci doon taxawoo gëm naa ne kenn ku nekk sa liggéey loolu nga ci nekk tàmbalee ko sëriñ Ousmane mii coordonnateur général maire ci dëkk bi professeur Lamine Gueye ci programme bu bees boobu alert boobu xam nañ ne def nañ ci yitte yu mat rek noonu itam fañ nekkoon dañ faa nekkal sëriñ Bassirou nekk ba sëriñ Mountakha ne ci diggante boobu lu bari ñu defu xam waaye xam nañ ci daal yitteeg Pastef mboolem ñi fi toogit kenn ku ne ci noonu nga doon doxi loolu képp a tax résultat bi mën a am sëriñ bi kon jërul may yàggal jotaay bi jërul ma di la sonal cant ak cant rek la mboolem nun ñi bokk liggéey bi bokk sëriñ bi bokk mbir mi kenn ku ne yëngu ci sa xol ak cant ndax kenn ku ne mu réussir nga bëggoon réussir na kon nag Pastef lanu sëñ Tuubaa fàggul te bi di ko sàmm ak yitte ñu defoon Pastef ak yitte ji ba lañ ci bëggoon am ko alhamdulilah rabbil alamin lañu mën a wax yàlla na yàgg rek lañ ci mën a teg yàlla leen fi suñu borom yàggal leen fi defal leen jàmm ñi doon liggéey ñëpp sëriñ Tuubaa fayal leen boppam sëriñ Tuubaa moom comme fayal boppam soxal sedd kon ñun ñëpp yàlla na sëriñ Tuubaa dugal ci biir yéen ma def boppam ngeen yàgg taxaw liggéey bi ñu ci bëggoon sëriñ bi ci boppam sëriñ Tuubaa la mu bëggoon ci bisam bi na na dëppoog ni ñu ko ko defale sëriñ Muntaxa it wóor na mën na ko bëggoon defee woon nañ ko noonu te loolu nag ci la suñ mbir mu jub nekk ci la suñ aju la ñu nekk maa ngi jégg bu baax mbakki sant baax